dal leen jàmm ci yi gën fës ci yéenekaay ñu dore ko ak l'évidence quotidien ma xëy ca législative yi ak alliance pour le Sénégal du Alioune Sarr journal bi naan week-end d'action et de mobilisation pour Alioune Sarr week-end boo xam ne moom Alioune tëddul toogul lekkul naanul ngir dajale ak di dajaak yenn ci ay leader ca Pastef bokk na ci Amadou Ba ca Thiès Cheikh Thioro ca Touba ba ci Nioro gamu mu yenn ci ay responsable yu Pastef mani la doon lim fi ngay fanaan laa la wax Mamadou Ndiaye bu parti démocratique sénégalais Diaz moom itam dem na ca Pastef ma ni ko ca transfert la bokk de yéenekaay bi naan commune bu Mbaaw kenn demul ñu des ak Pape Ousseynou Pouy ma génne ay moyens yu dul jeex teg ci taabal ji te naan kenn investiruma waaye projet bi jaral na ma ko ab caravane bu rëy la daal di amal niki demb ca Mbaaw te naan gis nga Mbaaw sax ñii di waa Pastef ñoo ko moom waaye loolu nag du tax benn yoon ñu banque suñuy tànk ndax la ñu bëgg moo di majorité ci assemblée nationale Walf Quotidien naan campagne bi moom saa cash déjà nekk moom yoonu continuité dëgg la ñu jël rupture moom gasi laa la wax Ousmane naan kon la politique ne sont pas des invectives Barthélemy Diaz moom Sonko la ubbee ca campagne a beaucoup menti détoy mani la lim fi wax ci lu dëgg boo ko doon xayma kenn xamul nu toll Amadou Mame Diop mu takk wallu Sénégal bëgg ak mën ñoo fi nekk laa la wax te gis nga Bassirou ak Ousmane mii dañoo tële laa la wax le quotidien dippee ko la guerre des quatre grands Ousmane Sonko Amadou Ba Macky Sall ba ci Barthélemy Diaz nouvelle génération la xëyee les nouveaux visages de la résistance Maniko Ousmane am nga ay adversaire de Barthélemy Diaz Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum Pape Djibril Fall ba ci Thierno Alassane Sall Maniko lépp loo gis xale koy def de direct news naan man gis nga mercato ba jeexagul de Doura Baldé ma fi nekkoon DG Lonase ca Macky Sall dem na ca Pastef yéenekaay bi naan kon un soutien de taille ca jamono ji nga xam ne source nga ñuy xamal Pastef moom 150 députés la ñu bëgg bu ñu a moment ou jamais ngir lan arrêté régime bi fi nekk mënuñu bawuñu Amadou Ba feelu ko te naan li leer ba leer mooy yéex nañu trop laa la wax dama xamul lu fi jar layaam layaami bi li quotidien naan loo ci xamul xamul Ousmane moom patriote yi mere nañu ko de ndax la mu leen digoon bokk na ci bés bu ñu yoree nguur gi kenn du daw làqu ci suñu ginnaaw laa la wax ay ralliement moom gëmuma ko waaye tey jii ñooñu système bi bëri nañ fa lool de ku ca mel ni maître Malick Sall ma ni ko waxu politique moom jarul dóor sa doom ma ni ko élection kay askan wa du ñu leen namm de le soleil naan pastef moom ñu nga ca Thiès ak li ko wër bàyyi gaay fii ci rukki ndakaaru yi ñuy xat-xatloo enquête yéene kaay coow ak yaakaar ju tas la daal di xëyee jëm ca appel à candidature l'observateur ak Alioune Sall la ko indi ca coalition jàmm ak njëriñ bu Amadou Ba menace jëm ci magam ji fi nekkoon président de la république di Macky Sall ba ci mbirum Franck Timis ak pôle judiciaire bi nga xam ne ñii yi bëgg Sall ngaari àdduna ca la turbine dellu siwaat ci arrestation Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp di xamle ni amul dara lu leen mënoon a teree dem ca Bakel ay tappale képp moo ko laal bëgg leen a bundu xataal waaye seen cortège boobee laalewul dara ak ma nekkoon ca kaw sa akub hélicoptère ma ni la Bougane naan man xam nga pënsubal maa ko rawoon ca biir gendarmerie ma ni ko kon de xaw ngaa dee gis nga chemise bi ma soloon boo ko gisee rek xam ne ñii di takk der yi dañu ma brutaliser te naan man kuy sàkku ñu lay arrêté kooku nan la mën a rebeller ak ñii di takk der yi ma ni ko xaw ma de li ma xam kay mooy campagne bi ku yabu def ci ndànk ay ca mbokk yi ngeen yendoo jàmm ba suba ak jàmm jëf